dikkati naa Cheikh Yérim Seck day ma ngay pénétrer président Macky Sall ak Ousmane Sonko tribune yéene kaay ne déet daf leen summi kay ab téere bu bees la daal di génnee moom Cheikh Yérim sekk ku ci nekk nag ci téere boobee xaar ci sa wàll ndax ku ci nekk nag daanaka jot nga sa wàll tribune yéene kaay ne ni ki démb la ca génn diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko la de moom yéene kaay bi day média bi ne ma moom Cheikh Yérim nee na njiital Pastef la ñu fekk fii ci corniche beeg benn Gambien Cheikh naan moonte président Macky Sall yëg na ko waaye dafa ne na sedd vox populi ne Cheikh Walfadjri mi ngi yor ay bomb yoo xam ni mi ngi kalaate ndànk-ndànk ay charge yoo xam ni daal dina koy teg ci kaw Ousmane Sonko laalati ay affaire de mœurs yéene kaay ñëwaat ci woto bee Gambien bi ci corniche bi daal di ñëwaat ci beneen coow loo xam ni it ma nga soxal Ousmane Sonko laalee beneen doomu Sénégal bu nekk ca Maroc Moustapha Diop ci bés bi la journée du dëgg de coow lii ñuy wax ne neen la demee du dëgg de Cheikh dafa sos lii Vox Populi ne en tout cas moom capitaine Touré Cheikh Yérim Seck tudd na ko ci téeréem bi moom capitaine Touré ne mbir mi ay kàcc la dara du ci dëgg te fas na yéene tàbbal yoon Cheikh Yérim Seck kalaame ji ko yéene kaay bi ne ma Cheikh moom dafa bawul kenn daanako wax na ci premier ministre bi ay réseau wax na ci ay njuuj njaajam wax na ci jàppaleem Karim Meïssa Wade bi wax na it ci ay bëgg-bëggam ngir jiite réew mi ëllëg Cheikh daal di xam le ni coow li coow li mooy président Macky Sall Cheikh Yérim ne waxuma la empreinte de waaye goudron ak xeer ak i béton armé nga rax ca feer lool la fa ma ki Sall di bàyyi ci réew mi ni ki empreinte ndax nag mooy gën a forle sax bu président bu njëkk ba Léopold Sédar Senghor journaliste bi ne moom président Macky Sall politicien la léppam politique la luy dox ci moom rek daanaka politique la mu jaxase ko nag ak sinism goo xam ne akub humour boo xam ne moom président Macky Sall wane ci doole joo xam ne dafa ànd ak brutalité muus lool ne ñombor am kattan boole kook di jaay doole askanam waaye tam Cheikh Yérim ne président Macky Sall daf ca boole di njuuj njaaj ci réew mi tekat bi la am bokk na ci li ci gën a rëy moom moo di créer ñoo xam ni ay pastefien lañ leen tuddee ci réew mi source aaneloo ci man ci moom Cheikh Yérim Seck ma ñetteel bi mandat saa si tembe moo nar a yàq président Macky Sall ak malaise bi nga xam ne daal dina am ci biir parti socialiste yéen ma Aminata Mbengue Ndiaye daal dinay convoqué secrétariat ngir ñu fas yéene pencoo waxtaane lii Walf Quotidien ma diggante président Macky Sall ak allié yaa nar a tas nag ñii buñ ca àndee ñeneen ñi moom ànduñ ca l'indépendant yéen kaay ma loo ci manti déggit candidature bi di ñetteel bi nga xam ne président Macky Sall fas na ko yéene ci réew mi lii nag mooy bombe à retardement bu bennoo bokk yaakaar loo ci mënti déggit mooy yeexal bennoo bokk yaakaar l'observateur ne ma saa si tembe kay coow la moom mooy parti socialiste ku fay njiit ku jot wax ndax nag pëccoo xoona ndax candidature bu 2024 bi fi mu ne xalifa ma waxoon ñu génnee ko candidat la parti bi léegi ku ñuy def candidat mooy coow li ndax sax nag daañu ko am Walf Quotidien ne ma en tout cas daal saa si tembe diggante président Macky Sall ak alliéem ma nga mel ni mbàccum gerte critique yéen a kaay jox kàddu duuduka mu xam le ni président Macky Sall mii fas yéene xeex candidat candidature am gii daanaka profanation la daal di xamal askan wi ne leen la ngeen wote ànduñu ci la caxat-caxatee suffrage bu askan wi lool la ministre maire Isaaxa Diop ci la yéene kaay ne coow li coow li mooy kenn mënta tere président Macky Sall doon candidat 2024 de ñun amuñu plan B ñun amuñu plan C ñun amuñu benn plan bu dul président Macky Sall mooy sunu candidat un point un tiré ña nga tënku nag ca yoon Isaaxa ne te yoon woowee moo daganal président Macky Sall mu utaat beneen juróomi at réew mi ña ko wàllu politique moo ko waral ndax boppam dañuy xëy di politique fàtte institution yi la ñu daganal boobu libération yéeni kaay ne ma réew mi comme sabar gu tas ab tempête daal mi ngi bëgg a yëngu laale Cosmos énergie Sonam assurance def kéemtalaay kàttan ba ñu bloqué ay comptam l'enquête ko di ma beneen scandale boo xam ne daal dinay rëy lool war a laalee nag Necotrans ñu war a xool nag relation yi nga xam ne moo dox diggante Cheikh Kanté ak Grégory Kerel réew mee yëngu tribune yéeni kaay ne ma faatu gi mel ni tuleeg maale ay nit yoo xam ne dañoo daal di soli ñoo daal di soxi ay sox daal di faat fay mi ab vigile ñoom bandi yi yéen i kaayib dee média bi ne ma ab banque la ñu ciblé woon laataa loolu ñu bëgg dal ci kenkaayër yi ay échange de tir am seen digganteeg gendarme yi ba ñu mujj nag daal di sàqi daal di daw saa si tembe nag ñu ngi leen di wër turbine ne ma lu ne am na ci réew mi de demal ci dëkk ba ñuy ndëngur faal li ëpp ci accident bi nga xam ni moo am ca sàkkal fa la jógee juróom-ñeent ci bakkan ñoo farot bàyyeekoo ci dëkk boobee ci ñaar fukk ak ñaar yi lob sa ne ma du de demal ca ci caare saa si tembe ñu ngi ci dëj goo xam ne ak naqar goo xam ne Mali yéen kaay bi dippee leen ay terre de souffrance l'indépendant yéene kaay ne ma moo taxit Mansour nee na du dellu ginnaaw benn yoon ca la nga xam ni nguur gi jël na ko ciy dogal ngir tàqale askan weeg accident gi réew mi ko di ne ma moytul de bu ñu waxee lii tey suba leneen la ñuy wax moom Mansour fay ci bés bi la journée laa ñu wax la ñuy def képp koo xam ni dawalkat nga nga daal di jalgati yoon ci dogal yi ñu daal di jël kaso dina la ñeel de ay daan dana daal di tegu sa kaw te du yàgg ñay xaar nag ab démission Mansour ne tëri leen man maa ngi ci mission yiñ ma sant loolu laatal ni kañ la ñuy jeex ci réewum Sénégal diggante ay bato yu suux ca bitanti accident yi am diggante Sikilo ak Sàkkal ab roplaanu armée bi nërmeelu na fi ay lakk am ci lopito yi Mansour Faye naan terewul ña nga xam ne ñooy sàkku ma démissionné day nan xaar ndax fasaguma ko yéene réew mi quotidien naan kon en attendant yi ngeen di jël dem leen ci ak fermeté le témoin yéene kaay ne nguur gi day dewisam bu bees moom mooy faiblesse restera à la loi dañ doon wax force restera à la loi jeex na nguur la goo xam ni nii dañoo yor seen doole daal di dal sa kaw mayuñu dara opposition bi waxtu woowu nag ay groupe de pression buñ taxawee teñ nguur gi rek mu daal di del ci ginnaaw ci dogal yoo xam ne jëloon na ko dañuy reculer te amun ci genn gàcce xëtum gaynde la ñuy di jógee def arrivé muus fi am libération yéen kaay na ma xool ko ci affaire Idrissa Goudia bi rek moom juge bi dafa sàkku procureur bi ñu daal di xool ku def ñaawteef gi ndax nag gannaaw bi nga xam ne defaat ab contre expertise xamal nan ni faat gu ñaaw lañ ko faat te moo ko def bi nag di sàkku ñu daal Idrissa Goudiaby mii Walf Quotidien ne ma coow laa ngi ci ñi am wopp cancer ci réewum Sénégal machine radiothérapie bi pan na bu bi pan na yi ci boppam ne mër kuy sowe Sénégal tribune sport ne ma en tout cas ci football day sowe na boppam bu amee benn ndam daal di yegg ca quart de finale ba ñi ngi waxtaanee CHAN bi ak équipe nationale locale bi nga xam ne moo ñu fa teewal l'observateur ne ma ko am jëkkërub gangster ñëwal toog ci réunion bi bañ leen laajee ñoom soxna yi nee ñu dëkk ak ab dafa daal di metti ndax yaa ngi ci diggante mu lay toroxal di la trahir angoisse moom nga dëkkee ngeen def ko yóbbal yéen borom kër hors la loi yi xam ne lii la seen soxna di dund ak lu mën a am mbokk yi na ñuy ñaan jàmm te yendoo